dëgg la merci am na ñu bëgg a dugg. merci merci beaucoup merci Ibrahima maa ngi lay remercier bu baax jaajëf jaajëf jaajëf merci def euh, merci merci beaucoup merci di la remercier euh, la jaajëfal ci ni nga bokkee ci waxtaan wi yéen ñuy si daal mën ngeen def ni moom euh, soo leen composé 77 810 90 90 ah Bao macha allah maa ngi lay nuyu di la jaajëfal Soda Diop itam ñoo ngi koy nuyu Awalo ah waa Lele wala Fulbe ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Plume daal itam ak ñëpp ñi nga xamante ñoo ngi ñuy seetaan jamono ñu toll aussi ñi leen leen di ñaan ah ngeen daal di euh, like vidéo bi am na ci solo maanaam ngeen daal di koy aimer tout simplement soo leen ko mënee itam i jege ñaale dana nekk loo xamante ne moo ñu daal di euh, gënal jaajëfal leen ci ñi ngeen di toppee émission bi di kaddu askan wi émission bi nga xamante ne mooy jël euh, kaddu gi daal leen koy delloo yéen ñu seetaan ngeen mën di woote di bokk ci waxtaan yi nga xamante ni moom la ñuy am di am du lundi au vendredi bu midi jotee heure Sénégal bien sûr donc chaque fois dañ leen di indil ay ponk yoo xamante ci wàllum actualité ubbee tey nag lañ leen ci tànnal bokk na ci euh, drame ba xew Touba euh, ab Baye Fall boo xam ne dafa mujj ñàkk bakkanam ginnaaw ak intervention boo xamante ne sa mal touré doon amee ca benn dëkk foofu salaamaaleykum euh, allo oui oui ça va ça va leen di la siyaar da bi waaw ah, journée baa rek ba lépp a ngi dox waa lépp doxul waaye am na am na luy dox waaw lépp doxul moom Sénégal moom <laughs> bu doon téeméer nga ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp dara doxul. am na solo aca bismillah waaw li may njëkkee tey mooy di xew Touba. Mhm. di jaale aussi ki ci faatu noonu. Mhm. di wax ne citoyen ak moroom citoyen mhm. amuñu droit am dugg ci yenn jafe-jafe yi ne ba ay faat ji am. loolu kenn ku ne da koy ñaawlu waaye man xam nga responsabilité bi kan laa ko jox hmm. lépp dama koy delloowaat ci état bi muy Macky Sall xam nga lu tax ma wax lool hmm. gis am réew buñ la ko dénkee hmm. da nga war a bàyyi xel askan wi la dénk la nga fekk ñu ko daan doxal boo ko yokku bu ko wàññi li xew Touba. dañoo mhm. waxante dëgg Touba bu demee bu demee ba bëgg mel na Dakar wala ñu ne Touba moom Mbuur a yem wala moom Dakar yem. Mhm. kon Touba amatul sens. Touba il faut mu am benn bët buñ koy xoole mhm. muy nit ñi yaakaar yi ñu am ak buñ jàqee ak buñ jaaxlee daw dem fa. buñ fa aggee buñ ñaanee yàlla dana mën saafara seen mbir yooyu. Mm-hmm. loolu nit ñi il ñu koy bàyyi xel Touba mënut a yem ak Dakar mënut a yem ak moom boobu lu loo waay neex def lu loo waay neex wax mm-hmm. loolu il faut nit ñi d'accord waaye lii li ko waral lenn kese la mm-hmm. histoire Touba boo ko dee xool yi ñuy tere Touba yi ñi fi nekkoon ñëpp xalifa yi Sëriñ Touba yëpp dañ ko daan tere waaye buñ ko daan tere ak mat ak maanaam ku ak mbooloo ñoo xam ne dañuy sëñ bi rek leen ñor lu baax rek leen ñor mhm. ñoo daan toog di waxtaan ba am kuréel yu ñu jël teg leen ñuy saytu yooyu mhm. ñooñu seen xam-xam day sori dañ xam adduna xam lépp nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi def Tuubaa loo xam ne jaadul mhm. danañ ñëw waxtaan yow ci njëkk ak teraanga buñ demee ba xam ne li nga bëgg mënoo ko def ñoom pare nañ pour wax ak état bi fi nekk bu boobaa boo fi mënee buñ la mënee boo mënee génn dëkk ba defi ko feneen yaa xam boo ko moom may waaye dëkk boobu dafa ma nekk hmm. état bi da leen ci daan jàppale waaye état bi moom dafa seetaan maanam liñ naan jaxase na ñëw na Touba jéem a jaxase waa Touba ba léegi gis nga ni mu leen dugal léegi hmm. kenn ku ne fii seen ay ay civil seen bokk ñoo xam ne ñoo bokk lépp bokk benn Touba di dóorante di xeex bay rayante loolu li ko waral mooy état bu bon ndax lan état dafa am responsabilité Touba ni muy doxee bokkut ak yeneen dëkk yi ni ñu doxee loolu nañu waxante dëgg bokkut ak yeneen dëkk yi munta mënuñoo yem mukk ndax bu ñamoon rek bu roon Touba ak Dakar ñoo yem rek jarut nit ñi di màggal ñuy dem Touba wala gàmmu ñuy dem Touba mhm. daa am benn yaakaar duñ fa am nit ñi bu seen bët xonqee wala ñu jaaxle mhm. jàpp nañu buñ demee Touba suñ borom faj mhm. kon man li may njëkk a ñaawlu mooy gis nga daa am ay kuréel yu nekkoon Touba am solo. Mhm. ma tudd ci lu mel ne Safinatul Amaan gis nga kuréel yooyu. Mhm. dafa amoon solo lool. sëñ Modou Lo Ngabou am na buñ ci jiite woon. Mhm. waaye daa am ñoo xam ne nii dañoo jege sëñ bi yàlla baal ma dañoo gëmut sëñ bi gëmuñu sëñ yoonu sëñ Touba alal rek leen neex gëmuñu dara fii nii Safinatul Amaan googu li mu doon liggéey Touba kenn xamul na de ci ci lu baax yii yëpp ñoo ko daan tere. te daa daanoo ci dégg dóor dóoru ci dégg damm doo ci dégg leen ñoom ñëpp dañ ko daan def ci seen kéem tolluwaay kàttan ndax ñoom am nañ xam-xam bëgg nañ Touba te xam nañ ni ñuy wax ak doomu aadama yi mm-hmm. muy waa Safinatu Amaan suñ muurloo ngaa bu jidoon ko waaye am na ñu ñëw fexe ba jege sëñ bi jege nañ sëñ bi waaye fexe nañ ba xam ne alal doo nga leen neex ruubee wax a wax a wax bañ tas kuréel googu léegi nag lii nag lay xew boo fekkee ñoo xam ne nii Touba rek leen ñor lu baax rek leen ñor mhm. ñu ko fexe ba jaxase leen sëñ bi moom daanaka kilifa la ab daa am ñu ko jegee ñoo xam ne dara ñoru leen lu dul alal ak maanaam jege Macky Sall léegi leen dong leen ñor mooy lan képp ku fi nekk Touba di doxal Touba ni ko sëñ bi bëggoon ñoom pare nañ pour jaxasal ak sëñ bi bu ko defee danañ indi ay problème bañ tas ja kuréel yu mel noonu kuréel yooyu bu ñu ko tasee nag lii dong lay indi. Mhm. nañ bàyyee Touba nañ ko bàyyeeg ñi ko moom. Mhm. Touba daa am responsabilité. Touba ay boroomi xam-xam ñoo fa nekk ñu bëgg lu baax ñoo fa nekk ku mel na suñ suñ suñ wóorloo nga moom tey bu jiite woon Safinatoul Amane ba tey nekk nii Touba yii ngay dégg doo ko dégg te lañu fa lay tere kenn du ko fa def ndax ñoom ci xam-xam lañ koy teg ci yar ci teggin ci jëf ju rafet. Mhm. li sëñ bi bëgg danañ ko danañ ko li sëñ bi bëgg dana ko am. Mhm. kenn du ko fa def te problème du am rey du am xeex du am. Mm-hmm. kon ñi jege sëñ bi te di mbubboo sëñ bi lañ leen jéebaane wax leen ñu génn ci yi ñu nekk lii ñu nekk nii musiba dong lay indi ndax mun a maam siwil ak morom siwil munuñoo munuñoo ceend attante mun leen mun mun a lijjanti moroom waaye ñu mel ne kuréel yi ma lay wax ni bañ fi nekkee ñoom am nañ xam-xam xam nañ li ñu bëgg kenn ku ne ni ñu waxtaanee ak yow ak ni ñu jëflante yow xam nañ ko. Mhm. ba bis boo nekkee Touba di def lu woo xam ne lii sañ bëgg ko. Mhm. da nga ko bàyyi mu neex la ak mu naqare ndax benn boo ko bëgg di bàyyi ñoom dañ leen fexe ba nga génn dëkk ba foo ko mën defee yaa xam ci njekk ak teraanga nag. kon kuréel yu mel noonu dañ ko war a indiwaat lu mel ni Safinatoul Amane ñu mel noonu ñoo mën a jiite kuréel yu mel nii mën a saytu Touba mhm. waaye sal bolo yi nga xam moo si dara ñoru leen alal kese rek moo leen ñor mhm. li jënduñ sax sañ bi ñoom na seen poos fees ñuy dund di noos di dem fu leen neex rek ñooy jaxase sëñ beeg ay ay lu mel ne kuréel yu mel noonu bañ ne tas nañ kuréel boobu lii nag lay jur après. d'accord waaw léegi nag ma dolli ci li ma dolli mooy gis nga Macky Sall am na ku nekkoon baa njuuñ njaaj gis nga njuuñ njaaj yooyu mu nekk noonu gis nga bu ko bàyyiwut dana dugg ci loo xam ne dana ko coûter cher ndax maa ngi dégg ñu ne la 17 la procès lay defaat ba maanaam comme li Sabise Faye àtte woon le le set boobu tamit la CEDEAO war a wax appel appel yooyu. waaw waaw gis nga Sénégal yi xam nañ bu baax fa jëm. Macky Sall li ko waroon gis nga depuis deux mille vingt et ba léegi mars deux mille vingt et un ba léegi. Hmm. Macky Sall soxla soxlay Sénégal yi lijjanteetu ko. xoolul Sénégal yi ñu ngi faju seen sécurité xoolatu ko moom kenn dong moo ko soxla muy Ousmane Sonko maanaam amul benn état ba benn état bi amul